Euh, yàlla dafa dogal ne pour lépp lu xew kàddu famille bi moom moo ko yore moom moo ñuy waxal te macha allah kàddu yi mu fi jot a yëkkati kàddu yéene la kàddu dëgg la itam ndax góor gi ba mu koy dénk ne dafa gis Serigne kër si pour ñu taxawu ale yi depuis bés boobu amul suba amul ngoon bés bu yàlla sàkk ci yitteem yi gën a am importance ci lay bokk ci loolu lay jubli ba loo jublu ba lolo indi tay ñun ñëp ñu daje fi ngir lolu sama wayjur bu goor bàyyi woon ngir Serigne Babacar si ndax euh, Serigne pap malik amul won benn bés mané ne benn bés ay at ak at boo xamante du jaar ci allé yi allé yi c'était son parcours quotidien avenue El Hadj malik si aussi c'était son parcours quotidien ngir yalla ak xam ci du mak yu bax yoon ak seen leer fu mu tollu moo tax dem nañ à un moment da daan xool di ne ah dafa mel ni de ñu ngi koy xaw a négligé est-ce que nit ñi duñ ci gën a farlu di ko toppatoo lu koy mettitlu mettitlu mhm. ba bés ba ko góor ga feeñoo mhm. di ko wax waxu ale bi mhm. mënuñu lu dul di ko rafetlu di massawu coono it euh, njaboot yi nga xamante ne ñëw nañ tey jàppale ñu di massawu itam riverain yi waaye ci man euh, xeetu investissement la boo xam ne Serigne kër si ku ko lebal ker mu fayee la ko guddi waaw te itam wax na ko sànq ku mënal boppam la macha allah moo tax fa tabarakallah ci kàttanu sunu borom ñu ngi sant ñëpp di rafet lu bés bi ñaan yàlla lépp lu fi nit sonn yàlla na ko ko yàlla fay ci barke mag ñu baax yi ñu am macha allah soxna Fatima